Ismaïla Sow maa ngi lay nuyu. madame maa ngi lay fay. Ismaïla Sow nga jiite maison des éleveurs du Sénégal ñu lay laaj actuellement euh, ñaari fan des ci tabaski bi est-ce que marché bi am na xar yu doy pour sénégalais yi. waaw mun nañu wax ne di wax dëgg yàlla xar yi ñëw nañu bu baax ak doole ndax ji wàcc si nañu ci marché bi. te même ci tey ci suba ñu ngi may signalé am na ay wee xar yuy duggee côté frontière Mali am na yeneen yuy duggee côté frontière Mauritanie euh, am na aussi ñooñu it xar yooyu it ñu jëm wax dëgg yàlla ci ci dëkk yu mag yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir Sénégal te wax nañ nit wax dëgg yàlla zone d'attente yi ñoom euh, xar yaa ngi fay ñëw bu baax loolu nag ñun ñu koy rafetlu waaye seulement. li nga xam ne euh, jaaykatu xar yi ñu ngi koy signaler fan yi yëpp dañuy wax ni gis nañoo ne population bi génn gul par marché bare wuñu ay client loolu nag euh, dafay jur ay difficulté ndax euh, xamuñu lu tax loolu waaye léegi dañu ci ñaan rek yàlla bu mu fekk nit ñi dañoo bëgg xaar ba dernière minute parce que aussi nit ñi bëgg nañ lu yomb trop kenn ku nekk da ngay bëgg bay bee Eh, tabaski des benn fan nga dem jënd fale mu eh, xar du tabaski eh, du du takkal sa kër du fa nekk aussi muy mais ci sa biir kër di tànkal nit ñi nga buggee ko nu muy yombe waaye loolu it nañu xam ne am na risque parce que bu ñu toogee ba des quelque ñaari fan wala benn fan ci tabaski ñu bugg a dem seeti xar bu song songandoo marché bi loolu mën na jur ay jafe-jafe parce que jur jur ay jafe-jafe mooy bu ñëpp ñëwandoo ñu jënd la fa am day fekk yeneen xar yi du ñu na a dellu pour indi leen ay xaar parce que nit ñi tamit dañuy calculer dégg nga kon ni ñuy faral di ko waxee rek du doo indi la nga mën a indi yëpp dafa am looy indi mais nag nga xaar aussi bu loolu commencé wàññeeku it nga dem yokk kon loolu. Euh, tamit dañ ci tiire attention nit ñi lii dafa di farata boo xam ne bi ñëpp soxla nañu ko nit na ci jóg à temps pour li jant boppam hmm. mais xanaa Ismaïla seen xar yi dafa dafa cher est-ce que xaru quatre-vingt mille am na est-ce que nekkul ni sénégalais yi dañu amul lu ñu jëndee xar euh, xar yi na wala cherul déedéet xam nga noonu boo seetee xar yi xam ne moom la yore mooy xaru càmm xaru càmm googu nag ñoom dafay nekk ay xar yoo xamante ni wax dëgg yàlla seeruñu ku ci soxla boo ñëwee mun nga am sa xar nga jaay sa xar nga jëndal sa xar yóbbu sa kër ci prix bu abordable parce que xaru càmm yi moom loo mënta yore te muy lu war a mën a jënd xar boo ñëwee da nga fekk xar boo xam ne bii mun nga ko jënd parce que dañ ci sóoraale am na ci ñoo xam ñi seen loxo jotul seen gannaaw am ñoo xam ñi aussi dañ naam am nañu tuuti waaye dañoo am yeneen priorité yoo xam ni mënuñu ko ba te tabaski bi moom doo mënoo toog aussi ñëpp a di tabaske say doom aussi jënduñu xar loolu tam ñu bari duñu ko mun daal moo tax xar yooyu moom amul benn jafe-jafe wax dëgg yàlla. naka gisee xar yi président Diomaye jënd jënd na ñaari xar daal ñu xayma ko ci trois cent soixante mille francs Euh, naka nga mbir mi xaru cent soixante mille daal jënd jënd ci ñaar. ban commentaire nga siy def. Mhm. waaw li may euh, commentaire bi ma ci am rek mooy président Diomaye wax dëgg yàlla xam nga moom bu ñëwee waxaale xaar normalement war na bu lu mu fay rek ñu jaay ko ko waaye man bu doon man la xam nga bu nañu ma teg leneen waaye man bu doon man la duma ko jaay xar ndax nag wax dëgg yàlla en tant que suñu président de la république mu nekk père de nation kooku nag wax dëgg yàlla sénégalais yi war nañu ko mën a ameel xar ndax li ñu gàlla ci kowam mu taxaw ci suñu soxla nekkal ñu fi kooku moom wax dëgg yàlla man bu ñëwoon sama gerte koon man dama koy may xar Euh, léegi euh, seen jafe-jafe actuellement euh, lan la ci ci actuellement ci opération tabaski bi yan jafe-jafe ngeen am. waaw xam nga jafe-jafe moom mënul ñàkk waaye wax dëgg yàlla fi mu nekk nii li ma ci constaté ci jafe-jafe rek mooy quelque. difficulté ci affaire aliment de bétail bi mooy tey dara sew xay dara sew xay foofu ki nga xam ne moo fa teewal ministère de l'élevage aussi nekk na nit koo xamante ne kii doxalinam mm, nun rafetlu wuñu ko parce que daaw dafa am benn commission bu ñu tegoon muy jaay aliment de bétail ñu dem bi ci biir moom mu ñëw mu di nangu aliment bi fekk jaay mu nangu commencé ko jaay aliment bi ñu constaté ci mu am ay manquement yu bëri mu indi ay problème moo tax ren dañoo dafa buggoon a répété waa loolu ma ñew mu ne moom moo koy jaay commencé taxaw ah suñu mbokk éleveurs yi ñoom ñu nekk wax dëgg yàlla ñeme nekkandoo ak yow di jaay aliment parce que bu ñu ko defee it wax dëgg yàlla bu aliment bi manqué nga indil ay problème looloo tax éleveurs yi éleveurs yi moom jën na ci aliment boobu après ñu bàyyi ko aliment mm. après moom mu koy jaay ñoom ñu dem jëndi seen aliment de bétail bopp après mu ngi ñu teg ci seen côté seen magasin ñoom ñu koy jaayante ji seen biir loolu nag comportement boobu noonu wax dëgg yàlla rafetlu wuñu ko parce que nag aussi ministre bi it war na bu fekkente ne am na asam dégg nga léegi mu leen di artu di leen teg ci yoon parce que aussi boo nekkee moom it bu amee lu ci manque moom am na ku koy couvrir ñe ay baadoola lañu dégg ñoom la teg lu ci métti loolu moo tax ñun loolu ñemewuñu ko te loolu danañu ko bind ñoon ñu jox ko bu ci jëlee mesure baax na bu jëlul mesure aussi ñun ñu yoon new ci danañu ko ci rendre compte à part loolu gisuñu ci beneen euh, problème wax dëgg yàlla man daal foofu la daal quelques localités yu xaw a mel noon aussi ak yeneen ñu ñu ma signalé lu mel noonu rek la ñu may xaw a si signalé parce que nit ñi nag am na ñoo xam ñi moom ñoom ñoo ëpp éleveurs yi soxla ci aliment de bétail. Euh, Ismaïla Sow ñu laaj la aussi euh, lan la Sénégal mën a def pour xar yi nga xam ne ñu ngi koy soxla duñu ko jéggaani fenn. waaw léegi Sénégal li muy war a def vraiment mooy tracer benn politique bu baax bu tegu ci yoon nga xam ne dañu koy discuter ak éleveurs yi ñu waxtaan ko organiser wu ba nga xamante ne suñu production locale danañu ko mën a organiser mais ñi nga xam ne aussi ñooy sàmmkat te dund ci. di ci fortaatu lu ñu am ñoo ñu aussi ñu jàppale leen te loolu nag mooy déglu nu nun ñii ñu waxtaan ak moom ah mun nañu dooleel tamit nag ñeneen ñi nga xam ne dañu yar ay xar waaye xar yooyu aussi bu fekkee ñoom la ñu gën a dooleel ko ñun am nañu risk fekke ëllëg ak jàmm ñu am élevage boo xamante ne bi naam dana rafet de waaye bët moo koy seenu loko du ko laal ndax dafay cher nag parce que nag wax dëgg yàlla lañ ciy def day jafe kon man defe naa ne réew gu mel ne comme Sénégal suñu tradition suñu culture nga xam ne nun dañoo bari ay événement yoo xamante ni nit ki daf ciy bëgg satisfaction parce que tey ci tabaski bi kenn ku nekk dafay bëgg yeew xar boo yeewul xar dafay doon nag gàcce ci yow day métti ci say doom bëggoo ñuy dem di ci yeneen kër dafa xaar na xar bu ñu ree ak yooyu kenn ku nekk day bëgg yeew xar te bëgg aussi tamit nag am na ñoo xam ñi wax dëgg yàlla nag xam nga ne mm, doxul neexul mooy eh, am am bi demeewul noonu kon kooku dafa taseeg xar boo xamante ne bi bu mooy seer bu yemambaay nga war cee mën a def lu raisonnable nga jox sa xar hmm. dégg loolu moo tax aussi war na ci ñu fekke it ba nga xam ne du ñu dépendre ci suñuy nawle parce que bu fekkente ni liisu nañu li ñu fi yor ba amul lu ñu yaakaar lu dul yeneen réew yi bu ñu xuloog ñoom wala ñooñu am problème ñun dañuy am jafe-jafe. Mhm. waaw. dernière question Ismaïla euh, vol de bétail bi sonal na leen loi criminalisation wu euh, vol de bétail bi fu ñu si toll lan nga ñu si mën a wax. waaw merci beaucoup wol de bétail bi di wax dëgg yàlla criminalisé nañu ko mais teewul ba mu ngi fi waaye dëgg naa nag président de la république mu ne dañuy euh, réviser loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi ñu koy rafetlu ak aussi décret d'application yi nga xam ne moom la ñuy jël pour le code pastoral yooyu aussi génnagul kon yaakaar naa bi tamit danañu ko ci war a gën a boole pour ñu gën ko améliorer xëy na nag xam nga dafay ñëw soog a ñëw te dossier état nag. aussi dafa laaj temps pour nga xool ko xalaat seet fi ngay war a teg sa tànk kon ñu ngi am yaakaar bu wér ne incha allahu rabbi nguur gi dana ci war a mën a taxaw aussi pour jéem a améliorer loolu yëpp da euh, nga xam ne dana mën a couvrir dana mën a euh, jàppale population yi yàlla musal leen ci lu bon liy faral di am mooy càcc ci jur gi. Mm-hmm. kon euh, Ismaïla Sow ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci madame man maa leen di sant vraiment di wax ne damay gërëm euh, rajo Rewmi FM ndax gis nañu wax dëgg yàlla at mu ne da di taxaw yéen it ngeen dugal ci seen loxo ñu bokk xalaat seet nit ñu naka la ñuy war a mën a def pour ñu mën a organiser wu dégg nga ba orienté yi joxe ay information loolu moo tax ñu ngi ñaanal réew mi FM yàlla naka yàlla sàmm. amiin yokk wér ak kattan te may leen wér gu yaram bu gudd fan yéen ñooñu may leen aussi yokkute bi ngeen ko yëg. amiin maa di gërëm di gërëm di ñaanal kilifa kër gi ci mbaaxam ak góorgóorloom. jërëjëf kon Ismaïla saw ñuy fàttali ne yow yaa jiite maison des éleveurs du Sénégal en tout cas ñu lay remercier bu baax a baax heure bu ñu la soxlaa nga disponible jërëjëf.